ñu ngi di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee candidat bi di Idrissa Seck ak programme bi nga xamante ni nii nee na moom la fas yéene yore réew bii di Sénégal ñu leen koy dégtal comme niñ ko defee woon ak yeneen candidat Idrissa Seck nag li njëkk ci li nga xamante ni mooy programme am moy dolé li nga xamante ni institution yi Idrissa Seck ne constitution bi dañ koy dooleel de telle sorte que kenn du ko mëna soppi tank jaaro li nga xamante ni référendum mu rax ci doole système parrainage bi nga xamante ni Macky Sall moko introduire en 2018 te japp na ne liko taxone taxoon moy éliminer ay candidats bis bu faloo da kay dindi. lu jëm nag ci walu statut président de la république Idrissa Seck dootul nekkati chef de parti maanaam day renoncer ci li nga xamante ni mooy statut militant am lu jëm nag ci wàllu yoon Idrissa Seck ne dina amal ay coppite yoo xamante nii ñi nga xam ne ni ñoo ne ci biiru yoon di ci yëngu dinañ mën a moom seen bopp waaye naka la ciy demee Idrissa Seck ne day créer benn cour constitutionnelle boo xamante nii juróom-ñaari membre ñoo ci ne bu weesoo loolu ministre de la justice maanaam jëwriñ gi ñu dénk wàllum yoon dootul tekkati loxo ci doxalinu li nga xamante ni mooy acteurs yi ci nekk seen liggéey te itam juge des libertés day am ñu dooleel ko ba nga xamante ne nii détention préventive yu jéggi dayo yi ñu mën ko moytu magistra yi seen statut ñu gën ko dooleel ba ñu gën a mën a amal seen liggéey ci nu mu waree mais du ci yem magistrat yi dañ leen di dooleel arlen protéger leen ba du mëna cédé ci pression politique ak pouvoir yi nga xamanteni ni ñoo yor alal ak leneen lu ni mel. walum administration publique manam rew mi ni muy doxé ci walum fonction publique ak yu ni mel Idrissa Seck am yéene amal ay coppite yu bari. li ci ñëk moy nomination directeur généraux dotul am directeur généraux pour tabb ko dañuy def appel à te képp kuy candidaté dangay def déclaration de patrimoine maanaam wax alal ji nga xamante ni moom nga yor te itam bépp directeur général dañ lay audité saa su ne pour xool ba xam ni nga joree mbir bi ñu la denk jaar na yoon système bi aussi dinañ ko xoolaat ba yenn hauts fonctionnaires yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ni muy doxee mën a bañ a fës trop ci li nga xamante ni mooy langum politique bi. walum organisation électorale Idrissa Seck ne faaw ñu xoolaat mbiri naka lokay défé defee bis bu Idrissa Seck ne day amal bénn fichier électoral bo xamante day woor té bép acteur politique dina la ci impliqué. saa yu élection waré am dañuy fixer bép date date yépp mo xam yu élection présidentielle élection locale élection législative lépp date yi dañ koy xam en avance l'ata dara di xew.

beneen pàcc bu Idrissa Seck ne dina ko def mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso yi maanaam ñi caabi féetee ginnaaw dinañ am possibilité di voter di participer di joxe seen kàddu ci li nga xamante ni mooy élection ci biir réew beneen ci yéene li nga xamante ni mooy Idrissa Seck mooy mbirum Casamance parce que Idrissa Seck dafa jàpp ni Casamance benn zone la boo xamante ni daanaka liñ ci waroon def ci wàllu investissement dëgg defuñu ko. léegi nag Idrissa Seck ne lim ci namm amal mooy fexe ba Casamance désenclavement bi maanaam ñàkk toppatoo bi nga xamante ni moom lañ ko war a jagleel da koy def ni mu koy amalee mooy fexe ba Casamance accessible maanaam ci wàllu yoon moo xam ci wàllu tali moo xam ci wàllu maritime bi maanaam voyage ci wàllu géej gi ak lu jëm ci wàllu jaww ji. lu ñeel nak walu komkom de ñeel dëkk bi di Casamance Idrissa Seck ne dañuy créer ay unité de transformation agricole pour région bi mëna a jëriñoo koom yi nga xamanteni mo moo tukké tukkee sukkandiku itam ci aada Casamance cosaanu Casamance ngir mën ko def lo xamanteni ni tax jamm am fa te itam ñu bolé ci bép chef traditionnel bép kilifa aada bo xamanteni ni biir Casamance nga ne ngir jamm mën fa sax tak ndaw Casamance yi nga xamanteni ñu ci bari manam amuñu li nga xamanteni ni formation gi ci war ñu mën leen ko jox ci anam yu mu gën a ba ñu mëna bokku ci réew mi ni muy doxé mën ci joxé seen xalaat mën ci joxé seen xam-xam mëna bokku ci ñuy doxal réew bi di Sénégal jigéni casamance yi tamit kenn demal ñu des ndaxte dinañ leen yombal li nga xamanteni moy crédit bancaire manam di mëna lepp ci nu mu gëna yombé ngir mën di financer seen projet dañuy des ba tay ci walum économie mais ñeel réewum sénégal ci wàllu koom googee Idrissa Seck sukkandiku lool ci li nga xamante nii mooy wàllu napp gi maanaam wàllu pêche sa Seck yéenam di dooleel li nga xamante ni mooy pêche artisanale maanaam napp cosaan gi nga xamante ni booy xool dëkk yu bëri ci Sénégal moom la ñuy def léegi dañuy créer ay licence de pêche yoo xamante ni nappkat yooyee dinañu mën di def seen liggéey ci sécurité ci anam yoo xamante ni du menacer seen nekkin du menacer li nga xamante ni itam mooy seen dund bépp gaal buy dem géej dina am ay normes de sécurité yoo xamante nii da koy sàllool ba ñëpp ñi ci ne mën a aar seen bopp mën a moytu yenn njombe yi nga xamante ni mën na leen dal ci biir géej gi teewul ni sa Seck ne dina renforcer li nga xamante ni mooy air maritime protégé maam AMP yi nga xamante ni ñooy aar li nga xamante ni mooy ressources yi nekk ci biir géej gi. lu jëm aussi ci code de la pêche bi code de l'environnement bi que ko gëna a ba géej ñu mën ko aar ba nappkat yi lépp lu ñuy wuti ci biir géej gi ñu mën am saa su ne lu jëm ci pollution ak lu mel lépp dañ koy xeex ba géej gi mën di delloo nappkat yi li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg. lu jëm ci wàllu koom-koom ñeel hydrocarbure pétrole ak yu ni mel sa ne prévoir na ci yu am solo ci li nga xamante ni programme li njëkk mooy renégocier ci nu mu gën a gaawee contrat yi nga xamante ni nguur gi fi nekk signé na ko buñ ci noppee créer ay entreprise locale yoo xamante ni biir réew mi lay nekk te ay doomi sénégalais yi nga xamante ni am nañ xam-xam ci wàllu gestion hydrocarbure ñoo ci ne ñoo koy gérer anam aussi gi ñuy exploiter ressources renouvelables yi daañu ko xoolaat ñu bañ du ko caxat-caxate ngir suñu réew gën ci mën a jëriñoo loolu tamit dina laal wàllum environnement ndax dina créer ay bërëb yoo xamante ne nii seen liggéey mooy nekk gérer li nga xamante ni mooy mbalit ak bépp mbir moo xamante ne nii usines yi ñu ngi koy dégager di ko sànni ci li nga xamante ni mooy géej. wàllum kaaraange tamit bokk na ci li nga xamante ni mooy programme Idrissa Seck idi ne dina doole li nga xamante ni mooy force de défense yi maanaam ñi nga xam ne ñooy aar kaaraange réew mi ñu am ay moyens yoo xamante ni ak ay matériels yoo xamante ni dina tax ñu mën a protéger askan wi bépp gox ci réew mi ñu am fa ay ndawu police ak gendarmerie yu doy ba sénégalais fépp fu mu mënti ne mën dund ci xel mu dal benn partie ci force de sécurité yi muy sapor pompier Idrissa ne bépp gox ci Sénégal dina am caserne sapor pompier bii tax bépp njombe bu fa mën a am ak dayo bu mënti doon ñu mën taxawu population bi ba ñu saafara ko ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gën a amee solo. xëyu ndaw yi Idrissa Seck ne dina wàññi taux chômage bi jëlee ko 40 pour cent ba 25 pour cent ci ay at yu néew. waaye naka la koy amalee Idrissa Seck ne day yokk main d'œuvre bi maanaam doomu aadama bi day am formation ak qualification boo xamante nii dina méngoog bërëbu liggéeyukaay yi li ñu soxla. bépp daara bu ñuy tàggatee ndaw yi ñu mën fa développer li nga xam ne mooy culture entrepreneuriale maanaam ndaw bi du jàng rek pour wut liggéey mais day jàng tamit pour créer li nga xamante ni mooy ay entreprise beneen mbir itam Idrissa Seck na mu ko amal mooy këru liggéeykaay yi nga xamante ni dañuy liggéeyloo ay ndaw yu bëri ñu fexe ba dooleel leen maanaam wàññil leen taux d'impôt yi nga xamante ni moom la leen di appliquer ba tax ñuy gën di mën di recruter ba tax ñuy gën di mën a répondre ci li nga xamante ni mooy demande d'emploi yi yeneen domaines yi nga xamante ni tamit day créer ay emploi moo xam wàllum mbay wàllum sàmm ak wàllum napp dinañ leen dooleel ba ñu mën jur ay liggéey yoo xamante ni ay ndaw yu bëri dinañ ci mën a gis seen bopp mën ci yor seen bopp mën ci taral li nga xamante ni mooy seen i entourage ñu jeexalee programme mu sa Seck ak wàllum wér-gu-yaram Idrissa Seck ne li muy njëkk amal mooy yombal anam gi ñuy faje doomu aadama maanaam képp kuy sénégalais mën a faju ci anam yu mu gën a yombee naka la ciy demee bépp gox ci Sénégal dina am ay bërëbu fajukaay yoo xamante ni nit ki dina mën a faju ci nu mu gën a gaawee ñu renforcer li nga xamante ni mooy personnel bi maanaam ñi nga xam ne ñooy taxaw ñi feebar ñu am ci nombre bu doy ba ñu mën a assurer li nga xamante mooy urgence médicale yi mais pour augmenter li nga xamante ni mooy doomi aadama yi liggéey ci wàllum paj bi Idrissa Seck ne dañuy yokk nombre étudiants yi nga xam ne moom la ñuy orienté fi nga xamante ni mooy wàllum médecine yi ñu fexe ba ñu bëri ba tax ñuy am ay médecins yoo xamante nii dinañ mën a takku macha allah mën a taxawu askan wi. médicament yi maanaam garab yi dinañ fexe tamit ba mu gën a yomb ci askan wi ba ku ci moo xam jàngoro boo mën di am mën a am garab gi lay faj ci ni mu gën a yombee. donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen programme mu candidat jaa ngeen jëf.